non mais gars yi dañuy créer ay affaire yoo xam ne man ma yaakaar ne des fois gars yi dañuy tux di di di làqatu wala di tëx tëx tux di nëbbatu luñ ma mujjee wax xamalan la <laughs> may Sénégal nag Sénégal asile de fouille war nañ fa bëri de Sénégal gars yi dañuy sangu ba sot set ay dof yi set wecc lañ yow ay dof yi sangu ba set sol seen dàll siire ko ba muy nes si noq ci karawaat costume bu ñu wax nag bu ñuy wax rek nga xam ne dof la nañ muuma koo ci toogal kos kos bi karawaat bi rafet bul nangu mu wax ne doo gaaw a xam ne dof la bu koy ubbi rek nga daw dof yu silvisé lañ am Sénégal na moo am dof yu yu naqaree jàpp ay dof yu silvisé tant que waxuñu doo ko xam dof yi sangu ba set siiraasu kos karawaatu chemise bu rafet toog fekk dañoo ñoo ñëpp ay waa ay dalal xelu mbedd lañ bu ñuy wax nga rus moo tax bul nangu ñu wax nañ nañ mu war a dof nañ nañ solo ba rafet mais buñ ñëwee jotaay bul wax na del def signe mooy maa ngi dem nga bàyyi ñu def seen yooyu dem bul leen nangu ñu wax parce que dañ lay gàcceel nañuy soloog noonu la ñuy dofee noonu la ñuy ñàkk seen bopp yi koppoo ci ne ñu ñu waxee rek rus ay genre maître El Hadj Diouf exactement ak a bëri Sénégal asile de fou yi dañ ko war a yokk yokk lool hôpitaux yi ni ñuy amee hôpitaux yi ñu teg euh, euh, ay asile de fou aussi parce que dafa war a bë bëri dof bëri dof trop sax Sénégal dafa bëri dof bi léegi dafa bëri dof yu amul këyit ay dof ambulant oui voilà waaw <laughs> maam Diallo de dégg naa ne dafa dafa réer réer waaw <laughs> dafa réer de il paraît que même tribunal ba sax kenn gisatu ko <laughs> yow maa xam yow moo laa dañu doon wëral mu ne est que gars yi reyuñu ko <laughs> ma man moo moo moom moom day nekk di wër dëkk bi rek di wëraate ah ah dégg naa de ñëwatul sax tribunal wëral ñu ko moo laa dañu wëral moo maa xam ah loolu yéeme di maa de taw na maam ah, ndaw na maam da waxatul maam euh, euh, maam de dafa bëggoon wax ni euh, nañ ko def non lieu dossier vide après gars yi menacé ko <coughs> man daal man yow man gars yi loolu yooyu waaye léegi nan lañ mu ñoom nan lañ mën a créer loolu ñoom jël lañ maa xam def ko ku bugg wax ni Sonko deful dara après gars yi bu ko rey maa di daw maa xam di laqatu après kooku doon daw ñu jëlaat ko indi ko Canada mu ànd ak keneen ñuy monter vidéo <laughs> benn jour nga da ngay jot quarante information yu bokkut dañ naan la maa xam dafa daw dafa laqatu demut liggéeyatul il paraît que dañ koy waaja a rey après ba kenn ñëwaat ne la il paraît que sax dugg na avion mi ngi Canada di monter vidéo <laughs> Ousmane Sonko. soor <laughs> ki la seen seen kàcc yi sax dafa dafa dafa dafa àndul waa ji nee na dafa ngeen ne waa ji dafa bëgg a def non-lieu dafa bëgg wax ne dossier vide la après ñu bëgg koo rey muy laaxatu dem di gisati Gabriel Kane bay jël ay vidéo di ñëw fii pour monter <laughs> ba pare nag yónni ma des fois ñu yónni ma foofu ne dafa réer nañ ma ko wëral des fois ñu yónni ma fii ne ma wër ko Canada aussi bu maa xam demee Australie ñu ne ma dàqal ñu ko ah man nag moom finalement dañ maa def benn benn xaju gendarme gendarme bu ñu dressé di wëraate rek di moom daal xetu maaxam xam laay wër moo laa maa xam de il paraît que liggéeyatul dañ ko bëgg a rey ma dem wëri ci maa xam gugu gugu di xencu di xencu yaramu maa xam gugu gugu gugu gugu maa xam bi maa xam bi après ñu ah daw na daw na mi ngi Canada ma dawaat toppaat dugg Canada boobu boobu boobu maa xam nga boobu boobu boobu mi ngi ni mi ngi ni mi ngi ni <laughs> sa waa ji sa waa ji sa waa ji gars yi toog di leen wax waxu naxasa xandang yooyu ngir yàlla nañ yërëm sénégalais yi nañ bàyyi sénégalais yi ñuy teg fitna nañ bàyyi sénégalais yi ñuy teg fitna suñu yaay yi ñoo ñuy déglu suñu papa yi ñoo ñuy déglu dafa am ñu feebar ñoo dañoo am problème mu xol bàyyi leen xolu jàmbur yi ngeen di basculer ay waaye duulkat yi baa leen xolu jàmbur yi ngeen di basculer waaye bu ñu dee AVC yéen a leen ko def bu ñu dee ci euh, arrêt cardiaque yéen a leen ko teg de ba duulkat yi ngir yàlla wàcce leen wàcce leen tension bi waaye suñ yaay yee ngi leen di déglu dañoo feebar suñ papa yee ngi leen di déglu wéruñu suñu maam yee ngi leen di déglu lañu dee ku dee yéen a ko rey. te ay information yu ngeen tegul fenn ay fenn rek di teg di dajale di dajale rek di wéy di xotti di dem ku fi sa maam dee eh, yenn yenn ñi nekk ci bi di di duulale ñoo leen rey sa baay dee ci AVC ci bu dee bu dee da doon seenaan internet jàppale ne am na duulkat bu nekk ci internet bi boo assassin boo xam ne moo ko rey ay information nii di duul rek di dem di duul rek di dem di wér rek di taxawaalu calme calme calme doucement doucement doucement gaayen doucement lu fi ñor bañ koy macc fii Sénégal ba mu daj ñaar moo fi ne Ousmane Sonko moom dañ ko bëgg a taqal par tous les moyens du dem élection yi jàpp ko tëj ci kaso yi te ñu ko ko bëgg a def mooy gouvernement bi peuple bi moo nekk ci diggante bi mooy choisir ni dañ ko koy teg mu nangu ko wala mu ne du fi jar loolu kese la situation politique sénégalaise bi jarul dem midi à quatorze heures Macky et sa bande Ousmane Sonko le peuple moo nekk nii Macky moo jóge fii ne day jàpp kii dóor ko ci kaso yi di dem ci élection yi kii ne maa bañ doo ma sosal takkal ma kii gan la àndal pouvoir kii nag moom bopp bi la yaakaar kii peuple bi rek lay wax ay waay gis ngeen gars yi ñi ngi ma bëgg a gis ngeen gars yi dañ ma bugg a jàpp gis ngeen bàyyi gars yi dañ ma bugg a tëj gis ngeen gars yi dañ ma bëgg a sosal gis ngeen gars yi peuple bi ñooy def ni bopp bi soit kii mooy jàll peuple du gu dëll mu daanu wax ji jeex soit kii moo bëgg a dem ci kii kii moo bëgg a ñëwee ni bopp bi moo nekk ni peuple bi moo yor lépp mooy pouvoir bi kum dóor nga daanu ku mbëkk nga nga kii buy ñëw kii moom nee na préparé leen mu ne ne bopp bi préparé kii mi ngi ñëw sama kaw de bu nee nii rek bopp bi fu nekk nii bopp bi dafay def nii pour préparer kii buy traversé bopp ko tëll mu wàcc kii am ndam kii buy traversé bopp bi taxaw di xàcc rek di xàcc di xàcc bu ñëwul day danaa nii kii jàpp yóbbu kii Macky Sall Ousmane Sonko peuple baa ngi nii kii nee na day jàpp kii indi bopp bi mooy peuple bu nangu bu jëlee bu kii nee na ngeen jël élan di kon nii ngeen di def bu kii ñëwee ngeen di ko tëll mu wàcc walla ngeen bàyyi ko mu jàpp kii bu loolu kese la leneen soxlawuñ ko ana maa am jàlloo maa am jàllo dugg na duus maa am jàllo nangam maa am jàllo lam ca waroon liggéey liggéey na ko ku ci nekk dafa am lu ñu ci waroon liggéey kii dafa yónni ay éléments am ku ci nekk am lu ñu ciy liggéey maa xam li ñu ko waxoon mooy yóbbul dossier bi projet def na ko ñoom kii da ngeen di fàtte de ku ci nekk da am liggéey de dossier bi fan la wàccoon ci ñoom Abdoul Meng la wàccoon Abdoul Meng lan lañ ko santoon fexeel ba dossier bi ñëw Bassirou Gueye ne ko fexeel ba jox ma dossier bi. mu monte ko monté ko monté ko malgré lépp lu am biir gendarmerie ñii ñu dàq leen ñii ñu tëj leen ñii ñu ñii ñu rey leen ñii ñu nangam mais dossier ba Abdou Mbengue lu mu ci amoon pour am ndam moo lu ko Moussa Fall santoon mooy fexeel ba jël sama dossier bi dossier Ousmane Sonko nga indil ñu ko tribunal Abdou Mbengue ba mu ko defee Macky Sall yéegal na ko colonel lu brigade kese la woon ñu def ko léegi moo dirigé bépp brigade bu nekk biir Ndakaaru donc moom liggéeyam def na ko nee nañ ko good good fine nice yéegal nañ ko Moussa Fall Abdou Meng booyam la moo ko santoon tâche bi def na ko ñu jëlee Moussa fa mu nekkoon def ko mu doon général moom it mu euh, mu am ay dégâts collatéraux ñeneen ñu mu neewoon foofu général ñu wàcc leen dàq leen donc Abdou Mbengue sacrifié na ay gendarme moroomu gendarme moom pour doon chef Moussa Fall sacrifié ay moroomu gendarme moom pour doon général léegi dossier bi ñëw na ca kan la yegg moom mooy Bassirou Gueye Bassirou Gueye dugal ci ay montage am dugal ci ay photo pornographique monté def lu muy def lépp coow le ne kur ñu jël ko denc jël Bassirou Gueye ne ko léegi Bassirou dossier bi bàyyil ko ki nga xam ni dinañ indil beneen élément bu nga jox yow jox ko jox ko Maham Diallo ñu indi Maham Diallo mu jox ko Maham Diallo Bassirou Gueye seey donc ku ci nekk yaa ngi def sa étape benn bal la bu ñu paasante ok Abdoul Meng ak ki nga xam ne mooy euh, euh, Moussa Fall Moussa Fall parce que parce que fexe leen ba dossier bi yàgg ci ci ci Bassirou Gueye ñu ne tax parce que Bassirou Gueye Bassirou Gueye bloqué tee def lu muy def tak tak tak tak def lu muy def yoo yow fexel fexel fexel am xaar ma indi remplaçant euh, parce que kële kële dee na quoi lu mu tuddati Mous Samba Sall dee na donc jëlal bal bi nga jëm ko jox ki nga xam ne moom mooy lu Omar Maham Diallo. Bassirou Gueye tak passe comme Maham Diallo Maham Diallo ko tak bloqué tax bas Maham lijjanti ko ba mu dem tribunal bas Maham joué gars yi tak tak tak dribblé tak tak tak tak dribblé lu muy dribblé lu ñu di fent di passe na ko tak sànni ko euh, euh, kii nga xam ne mooy mooy mooy juge si bi ko jiite. donc kooku moo ko yor fu nekk nii mais Maham moom passe na bal bi Maham passe na bal bi looy doyati Maham Maham passe na xam yoratul bal bi xanaa doo bàyyi ba Maham passe bal bi mu dugg biir tribunal ba pare nga ñëw naan da ngay taakale Maham. ma ma pare na ca de ba mu ko bloqué ba mu bloqué bal ba taakale woo ko ba mu ko passé ngay doog a ñëw naan da ngay glissé da nga faa fekk bal loolu fóot la boo ñëw ni ñi da nga la. Samba Sall ba mu tee maa xam lañ fa teg Hamadi Diouf moom te bañ ko fa tegee Hamadi Diouf moom moom moom yàggul bal bi yàggul ci moom. Abdoul Meng, tac, Abdoul Meng qui récupère, en, cohésion avec Moussa Fall, Moussa Fall, Abdoul Meng, Moussa Fall, Inder, Moussa Fall, Abdoul Meng, Abdoul Meng, Moussa Fall, Abdoul Meng, voilà, dribble, Abdoul Meng, qui, qui passe à Bassirou Gueye, Bassirou Gueye, là, là, là, avance, Bassirou Gueye avance, avec le dossier, Bassirou de Bassirou Gueye, des de corps de Bassirou Gueye, Bassirou Gueye qui donne à, oh, oh, à qui, oh, Macky remplace, tac, tac, tac, tac, génne, génne sànni euh, ki nga xam ne mooy Hamadi Diouf Hamadi Diouf Hamadi Diouf le remplaçant de Bassirou Gueye qui dribble qui contrôle le ballon qui contrôle le ballon qui donne à qui qui donne à Maham Diallo oh là là là attention attention Maham Diallo Maham Diallo téye ko di di di dribble Maham Diallo qui fait ses dribbles Maham Diallo qui fait ses feintes de corps attention qui donne à qui pouf Maham Diallo yónnee ko ji si kooku teg ko dënn jàkkaarloo kaay kooku teg ko te du ko dugal kooku du ko dugal de kooku da koy teg dënn taxaw xaar après moom itam day tëj oh attention si le juge si qui contrôle le attention qui donne à qui qui kan la koy mujjee jox flip flap de si fii flip flap de si oh ya ya fête de corps ñuy oh. léegi si kan la koy jox Badio Camara mais Badio Camara moo ko war a dugal Badio Camara moo mbëkk ci kan yi si ak lu mu defa defa def même bu jugé Badio Camara la koy jox Badio Camara moom mi ngi naan ni si bul fàtte de maa ngi nii ci buntu camp yi loolu lépp baajo gisu leen ko ci mais ku ci nekk da am sa temps fu ne ni maa am na bal bi si le le le le le euh, comment dirais-je euh, le juge si donc foofu la Ousmane Sonko di ñëw na protéger les camps protéger les camps attention protéger tacle la Ousmane Sonko kii protéger les camps foofu ne ni mi ngi naan Sénégalais kaay leen protéger camps yi ayca ayca feesal leen ana gardien loolu la nekk Ousmane Sonko di wax nii fu sii lañ ko pas tak mi ngi ko mi ngi ko jongle ah, ah, mi Pajo moo koy reprise vr léegi bu ñëwee fekk bu mu koy reprise camp bi fes dell kaa di koy bëkkaat mu tellu vum bal bi dellu loolu la Ousmane Sonko fu ne nii yéen lay woo kaay leen blende camp yi kaay leen blende camp yi kaay leen taxaw leen taakali taxaw leen taxaw leen ayca ayca ayca ana gars yi pastefien kaay leen taxaw taxaw leen na camp yi fees na camp yi fees gars yi njool yi taxaw feesal dell camp yi moom loolu lay laajte moom loolu lay woote de mu xam ni gars yi ñu ngi koy paasante kenn mënu leen teree paasante mais Badio moom mi ngi def nii appel appel de balle appel de balle mi ngi woo si booy pare foofu rek jox ma ko war a dugal man moo war a valider moo war a mais bu dóoree reprise de volée ba gars yi peuple na ko rang bal bi génnaat <laughs> foofu mooy incroyable parce que supporters yi am na ñooñu moom mooy supporters yi moom mooy neutre yi supporters yi ak neutre yi ak ñi far ci beneen camp bi ñoom ñi ngi taxaw ci ci tribune di yuuxu boo xamoon dara boo xamoon dara teel a dugg boo xamoon dara boo xamoon dara teel a dugg wuu Ousmane Sonko wuu yaay ah, yaay yaay tey nga laata dégg nga ni ñoom ñoom supporter yëpp a ngi taxaw di yuuxu aya ah, tey nga laata dégg nga dégg nga Ousmane Sonko doo fii dara boo dégg nga di di woyal Ousmane Sonko match bi tàng loolu lañ nekk di joué nii tànk jër supporters yi di yuuxu waaw waaw waaye yow du seen morom maam passe bi rafet na ay eh, si si xoolal fële oh, mi ke kan la baajo joxal baajo joxal baajo supporters yi joxal baajo joxal baajo baajo du ko dugal baajo du ko dugal gars yi taxaw fees tel patriote yi di cëpp cëpp ci camp yi parce que bal bi day ñëw foofu mooy peuple bi peuple bi yëpp dëggu taxaw fort préparé wu buy ñëw bal bi bu ñëw rek kaj ji leen mun a bu mu ñëw rek loolu noonu la affaire bi demee gars yi di yuuxu supporters yi di yuuxu fii gars yi tiit mooy ultime phase foofu lañ toll but en or la bu duggee mat wa jeex na bu duggul jeex na but en or but en loolu moo xew nii Sénégal loolu kese la amul leneen lii lii la situation politique bi lii la kon ñun soxlatuñu kii nga xam ni moom la mu waroon def tâche def na ko muy Maham Diallo ni moromam yi defee tâche noonu la defee tâche am jàll maa xam jàll ab juge la bu nekkoon Ziguinchor am na fa sax yi mbokk ñu yanu ko indi ko ba Ndakaaru na ko yaay doyen des juges du ci jàngam de du ci xarañam du ci xam-xamam du ci aayam du ci expérience am lan moo ko fa def mission lañ ko sant mu dugal ko ci camp bi Macky dugal ko entraîneur Macky Sall dugal ko na ko yow bloqueel ma bal bi joxal ma ko kee loolu rek lañ ko sant lu mu toog yëpp di xaar maaxam mu ngi taxaw di échauffé wu nii tekk ci terrain bi wu laalagul bal bi kan xamadee ko xamadee ne tak tak tak jox maa xam xamadi téewu ko lu yàgg tak la def tak jox maa xam parce que kan lañ fa jëlee ku fa newoon Basirou moo fa newoon di yolamal yolamal ñu jël Basirou parce que Basirou dafa bëri lu muy dribblé te gars yi soxla ñu ay dribblé basiiru dafa yàgg ak bal bi di dribble ka feinte du corps moo tax camp opposant bi génne ko fa Macky Sall génne ko fa et eh, eh, génnal fi yow tu retiens trop la balle non non non c'est pas comme ça tu retiens trop la balle tu fais beaucoup de feintes non non non on n'aime pas la balle loolu moo tax ñu génne Bassirou indi fa ku ko gën a sari Hamadi Hamadi day day contrôle rek joxe tak Hamadi ne tak tak jox maa xam maa xam téye ko di dribble tout di xool ku mu koy centré ku mu koy centré mais loolu moo fi amoon maa xam na ba pare la ma waroon def def na ko bañ ko waroon taakale taakale wuñ ko bañ ko waroon dugg mu bàyyi bal bi dugguñu ko mu paas bal bi ñuy ñuy wëri maa xam waaw fu maa xam nekk fu maa xam dugg ana maa xam waaye nekkul maa xam paas na bal bi ba pare mi ngi ci juge bi mi ngi ci mm, mm, euh, le juge moo téebal bi jamono ji moo war a juger bu pare kan lay jox bal bi kii nga xam ne mooy baajo conseil constitutionnel baajo daf ne dañ koy dugal parce que entraîneur am bi loo ko da ko ko wax Macky dugalal bal bi dugalal bal bi bu en or match bi tas ñu ñibbi foofu leen toll donc wax ji bëreetul waa ji ki leen war a wax wax na leen ba pare xaw ma nu koy dugalee Pathio gëwuma sax na ko dugal na xaw ma penalty lay doon xaw ma na ko nar a dugal xaw ma du ko dugal ñaanuma yàlla mu dugal ko mais daal xam naa ne daal affaire yi moom euh, Amath Sy fu nekk nii moo yor bal bi le juge Amath moom la maa xam passe bal bi fu mu nekk nii mi ngi xool nu mu ko après nu muy def pour bu pare passe ko baajo baajo dugal ko. kon fu nekk ni taakale bi amat si la war doon amat si amat si nag du paa ab juge bu ndaw la ab juge boo xam ne doomu ndeyu François Mancabou la woon seen ñaari kër yi deux cent mètres la amat si François Mancabou xam na bu baax amat si ay gaayen lañ woon dañ doon naanandoo attaaya ba ñuy rey François bu gisu leen benn yoon amat si yàbbi ci doomu ndeyam la billaahi wallaahi amat si le juge moo ak François Mancabou benn lañ ñoo doon naanandoo ataaya ñoo doon ndoo ay best gaañ seen ñaari kër yi deux cent mètres matu ko deux cent mètres deux cent mètres kër ñoom François Mancabou kër ñoom Ahmed Sy deux cent mètres benn kër moo leen tàqale xaw ma ñaari kër ñoo doon nekk suba ngoon gaañ noo best gaañ ba ñu reyee kii kii musul wax kii musul yëy yàbbi wanewul sax ne xaritam la barke alxuraan xaritam la dëkk bi yëpp xam nañ Sénégal yëpp xam nañ jëppali yëpp xam nañ Amath Sy ak François bu ñoo doon nekk matin midi soir laajte leen lan moo tax Amath Sy ñu rey doomu ndeyam musu cee wax le juge Amath Sy laajte ko lan moo tax musu cee bi lan moo tax mu mel ni musul nekk gaayinam mu raxasu ci ba set wecc te ñu rey sa doomu ndey lan moo tax bañ koy suulee taxawoo fa taxawaalu woo fa lu tax te nga dëkk ci benn koñ ba ngeen di doon ay dëkkandoo di yàgg ànd donc amat si mii moo ko war a paase ji ki nga xam ni moom mooy baajo Camara Badio Camara war ko dugal donc loolu yëpp comme ni nga ko waxee c'est le peuple qui gère la VAR que la VAR soit rassurée kon loolu leer na voilà léegi lu tax ñu effacé ko Mancabou ci ko koñ ba ñu tax ñu éliminer ko jëlee ko fa loolu ku ci nekk mën nga xool ak sa xel rek lan moo tax sa doomu nday ñu rey ko noonu seeyal ko te yow ba léegi ngeen di ànd di musoo cee yëy yàbbi musoo cee wax nga effacé wu complètement kon Ahmed Sy moomu xam na ko bu baax léegi nag sa au peuple sénégalais de décider ñoom ñoo gérer VAR bi mais Ousmane Sonko moom lu ma dégg tey mooy kaa leen blendeel ma camp yi kaa leen taxaw kaa leen fees camp yi kaa leen déterminé wu leen bëkk leen kaj ji leen bu fi bal bi dugg loolu loolu la woote peuple bi dégg nañ ko donc voilà nañ concentré wu ci loolu te bàyyi ay waxu euh, baajo ki nu mu tërati yéen laajalewu leen fu baajo Camara ne ngeen ngeen di laaj fu fu xam nga <laughs> foofu laay tëjee quoi lan moo tax ñun ku yore bal bi duñ ko attaqué tant que passé ko duñ wax ci moom dossier bi ba mu nekkee fi nga xam ni moom mooy gendarmerie Colobane la Abdoul Mbengue di ci def lu salte jamono jooju ñëpp Abdoul Mbengue Abdoul Mbengue Abdoul Abdoul Mbengue paas Abdoul Mbengue Moussa Fall Moussa Fall du ko baax Abdoul meng du ku baax Moussa Fall du ko baax Abdoul Mbengue du ko baax mu yor bal bi rek di def lu ko neex ñu élimine fa ay gendarme yu bëri ndax Moussa Fall ak Abdoul Meng Abdoul Meng passe Moussa Fall Moussa Fall téebal bi ñu éliminer fa gendarme yu bëri ba ci ñoom euh, tin ñu éliminer leen fa Moussa Fall yor bal bi passe Abdoul Meng waxu leen ngeen nekk ci ñoom ah, mu passe Basirou Gueye ngeen dem topp Basirou Gueye lii ngeen tàggale ko Basirou Gueye Basirou Gueye yor na bal bi Basirou Gueye yor yor bal bi Basirou Gueye topp leen ko Basirou Gueye Basirou Gueye jël bal ba def ci lu ko neex parce que kii nga xam ne mooy Hamadi Diouf ñu toppaat Hamadi Diouf yor na bal bi Hamadi Diouf yor bi Hamadi Diouf moo yor jël paas ki nga xam ne mooy Omar Maham Diallo ñu toppaat bàyyi ñële ñëpp ñeneen ñëpp léegi fàtte nañu ñu topp Omar Maham Diallo Omar Maham Diallo yor na bal bal bi nag mooy Adji Sarr bal bi mooy Adji Sarr Adji Sarr mooy bal bi waaw Omar Maham Diallo moo bloqué bal bi Omar Maham Diallo mooy contrôlé Omar Maham Diallo mooy contrôlé Omar Maham ko ki nga xam ne mooy Ahmed Sy fu nekk nii dans un mois deux mois Ahmed Sy rek ngay dégg Ahmed Sy yor na bal bi Ahmed Sy yor na bal bi Ahmed Sy moo bloqué bal bi bal bi Ahmed Sy moo koy contrôlé Ahmed Sy am da ngay fàtte ñi fa jaar yëpp ku yor bal bi moom dinañ wax moo yor moo yor moo yor moo yor ba mu jox keneen ko moo yor fu nekk nii Ahmed dans deux mois trois mois Ahmed Sy rek ngeen di dégg xam nga Omar maa xam jàlloo la jamono jii kenn waxul Ahmed Sy Ahmed Sy dina liggéey ci bal loo xam ni ci Adji Sarr bi dinañ ci liggéey loo xam ne après foofu ngeen di demati Ahmed Sy yor na bal bi Ahmed Sy moo téye bal bi ku mu ko nar a paas nit Ahmed Sy dëmb la Ahmed Sy jinne la ba Ahmed Sy jël ko paas ko kii nga Badio ñu tamit topp ci waat Badio Badio yor na bal bi Badio dina ko dugal du ko dugal attention Badio mi ngi koy paas non Badio non Badio non dina ko dugal non Ousmane Oh, oh, oh comme defetu Sénégal yi rek oh ay ya buñ demee yaakaar ne dañu avancé rek toogaat téye sañ bopp bi ah ya ya non non kii yàq bal bi non kii dañoo yàgg ci loolu dañoo yàgg ci téye suñu bopp yi ngir yàlla nag jàppale leen ñu bu leen ñu ñëw indiwaat encore ay fu nekk nii amet si dans deux mois ngeen sonna la ñu amet si Ahmed Sy bloqué na bal bi Ahmed Sy moo ko téye mi ngi koy contrôlé ay waay Ahmed wuy sama ndey Ahmed mbaa da ko jox kii wuy yaa sama sama xol baa ngi rëcc waaye sama xol baa ngi basculé Ahmed ku mu ko nar a jox ah Badio wuy sama ndey Badio moo yor bal bi wuy Badio Badio ko dugal seen camp Badio yow yow Badio ba mu ne ko tëll ci camp ya ngeen téye seen bopp yi di jooy génn stade beeg ay ndox ndox ay ay ay ay ndox yu ñu wo woŋ wala wala ay baat yu ñu damm dañuy ñëwee ci Sénégal noonu la mel bu ñu seetaan match nii lay def ku ku xuña mun naa jëndal ñëpp crème galaas dañuy ñëw ci terrain bi ku ñu jëndal joxal ke glace joxal kee non Sénégal du seen morom non Sénégal du seen morom joxal ma kee glace ñëpp mu may leen crème glace da ngay gis kenn ku ñëw balaa toog mën na jëndal tribune bi yëpp crème glace <laughs> ñaata la nga ne ko cent mille <laughs> mu génne cent mille ci poos yi jox la benn euh, benn benn cent trente mille nga ne ko weccet non non jël bi <laughs> non yow yow Sénégal yow dañuy yow duñ seen morom <laughs> match bi ay onk onk ngay dégg sax ay oh ay ah, non oh ay yow kenn mi oh, ah, ah, bi ñu téye seen bopp non mais non mais bii bu la waroon dugal ñun dañoo yàgg ci loolu ñun loolu feebar boobu xaw ma kan la ñuy bàyyi. kañ lañuy ñuy dimbale sañu bopp bàyyi feebar boobu lillahi wa rasuli bu ñuy ñëw dañuy kontaan bu ñu fay jógee gàcce loolu daf ñoo dala dala dal ba safatuñu dara bu ñuy ñëw mën nañ jëndal ñëpp kerem glace kontaan loo tribune bi yëpp yuuxu téye sol lu rafet toog mais match bi yëpp dañuy mel ni ay pusa la ñuy jam suñu taat yi ay oh waaw ay oh. Oh merde, oui, oh non, non, oh non, oh non, non, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, aïe, oh, ah, oh, ah, oh. <laughs> non, ah, game over ñu, oh, oh, non, ñoom ñëpp damay ñu nga jëndaloo kerem sax doo leen gisati. ay waay loolu loolu kañ la ñuy bàyyi kañ la ñuy dugg ak ci ful la génn ci fayda feebar boobu yàgg na ci ñun feebar boobu dafa yàgg ci ñun kat nañ góorgóorlu tuuti nag ngir yàlla te bàyyi ko contrôler rek ñu toog topp ci waaye amet si amet si amet si amet si amet amet si parce que kële ñu toppat baajoo baajoo baajoo baajoo baaj mën na ko tëll ci camp ya ki war a wax ak yéen wax na leen neneen blende leen camp yi blende leen camp yi na défense bi yokku waaw six quatre whatever 641 quatre mais instant yi système défensif la blendel camp yi na défense yi yokk ana gladiateurs yi bu leen yërëm tacler glisser bombarder loolu rek lañ leen sant tacler glisser bombarder bu fi bal bi taxaw bu fi dégager dégager comme nawetaan dégager tacler boucler bombarder bu kenn bloqué bal bu kenn bloqué loolu rek lañ leen sant jeex na seen entraîneur nee leen amul bloqué buleel mu dem buleel dégagé dégagé comme suñu suñu championnat yi lépp loolu nga ciy dégg man loolu moo dam ma bàyyi suñu championnat Sénégal yi ma dàqoon dem seetaani euh, ay ay GIE ak jaraafeeg yooyu match bi yëpp bal bi day naaw kenn du bloqué ñaari paas mënoo koo gis. da ngay téye bal sax entraîneur bi dégage dégage dégage waa ji di ko dul mu naaw dem fële ko waa ji téyewaat yoko entraîneur am yuux ko dégage dégage dégage ko di ko dul bal bi ngay gis bal yi naan nii vum vum yow da ngay toog di miir di seetaan match yi di miir Gia Jaraaf ñu naan la non derbi la derbi nga ñëw toog xoolal di miir gis bal bi ni tëll dem ci bële nga defar bal bi ni tëll dem ci bii nga naan nii sa bopp bi naan nii da ngay dem bi naan nii di naaw kii naan dégagé tëll nga defaat fii kii naan dégagé tëll nga defaat fii dégagé kii bloqué dégagé nga naan nii match dégagé nga naan nii da doo gis doo leen gisati joueurs yi jaxasoo doo gis waa Jaraaf doo gis waa nii def nii yow ngay saraan bal bi naan nii vum vum vum vum vum vum fu ne nii loolu lañ leen sant dégagé bu kenn bloqué dégagé delloo leen ko ci jamonoy nawetaan jamonoy championnat dégagé voilà dégagé rek dégagé bul bloqué ba indi fa penalty bul bloqué dégagé point one love jaajëf à demain incha peace and I'm out